thank you appel bi sëriñ Muntaxa Mbàkke woote ngir ñëpp jàpp si xeex bi di coronavirus soxna Ami Mbàkke jiitu na si ndaxte nag daaju ministère de l' emploi de la formation professionnelle et de l' amal na tournée yu am solo équipam yii nag nga xamante ni ñoo tas si biir Touba bi ñu xëyee si këram fa nu njëkk dem mooy hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba jébbal leen matériel bu am solo ngir nag set gi naka noonee kàngam yi yëkkati kàddu sant waaye nag boole kook sensibilisation. li tax ñu bi. soxna ami Mbacke DAGE ministre moo ñëwoon tey di contribuer ci combat bi nga xam ne ñu ngi koy mëne au niveau de Touba parce que ku ne xam na ne li ñu doon bañ lépp am na feebar bi xës na dugg si te fi mu nekk nii nag li ñu mën mooy ñu àndandoo boole suñu doole yëpp pour xeex ko. je suis à l'hôpital Matlaboul ni pour réception don bi soxna ami Amy Mbacke yónnee DAGE daam Diop. waaw ñu koy kontaan lu di ko rafetlu parce que ku ci nekk ci dëkk bi war ngaa mën a euh, jàpp ci liggéey bi daal ndax lii euh, dañoo war a sensibiliser nit ñi. muy daara yi muy hôpitaux yi muy fépp muy kër yeeg fépp nit ñi dañ cee war a jàpp liggéey bi moom ñëpp a ci war a dugal seen loxo lii mu def rafetlu nañ ko lool ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax léegi man maa ngi fi taxaw ak ak euh, SAF mooy monsieur Cissé moo représenté directeur ak euh, ñeneen ak docteur Yakhya Diagne ak ñeneen ak ñeneen. donc euh, maa ngi wax si turu kilifa bi nekk fi docteur Matar Lo di remercier Dajou kii nu mu tudd Dame Diop. Euh, soxna Ami Mbacke bi nekkoon fii parce que moom euh, fii këram la donc dafa delluwaat këram te loolu noonu ñu ngi koy rafetlu ñi nga xam ne ne kon donc combat bi nga xam ne ministère de la santé ñu ngi koy entamé pour lutter contre le coronavirus dafa ñëw à point nommé. ndax léegi ñëpp xam nañ ni feebar la ba nga xam ni li muy gën a manifesté woo mooy yaram buy tàng boole ko ak liñ naan sëqët wala baat bi metti wala nga am problème pour nooyi. maanaam seeram mel ni yax yi day ruux wala genre yooyu ñu naan ko grippe nit ñu bëri na daan ko jaawale ak sibbiru waaw donc loo nga xam ne la finalement bu loolu amee ci côté dënd bi nag lay ëppee lu muy manifesto moo tax mu lay waar ndax li mu nekk ci mbirum dënd nag moo tax mbàllaateem gaaw lool ndax nit bu ko amee bu commencé sëqat rek day nekk wàlle bu gaaw lay nekk ci askan bi ak ñi muy dendal ak ñi muy dëkkandool te comme dafa nekk maladie boo nga xam ne ci ay lu ñu naan ay gouttelette ay toq yuy génn ci jaww ji lay tasaaroo ko nit ki boo ko jigee boo ko amee nga dend ak moom distance bu réglementé nga jigee ko lool saafanteeg moom wala nga laal ko ak say loxo te raxas woo mën na nekk mu wàll. bi nu jógee fii dem nañu directement centre de santé bu Daaru Xuddus ñu gën ko xam si jéemul foofu tamit ñu fekk fa tamit équipe bi di xaar ki yor communication hôpital bi sant loolu gis ni kat ndimbal bu ni mel waxtu wi mu ñëwee lañ ko gën a soxlaa ndax hôpital li fi ñëw dafa takku te nag foog ñu mën a àndal set. di nga sëqët di nga tufli également di nga tisool yi donc loolu gorge bi également di metti donc loolu yëpp kii ku ko yëg rek sooy boo nga dem ci docteur bi la gën a jege moom it mu yóbbula fañ la war a yóbbu loolu suñ ko defee rek suñu borom dinañu mën a musal aar ñu ci tawat bi nga xam ni moom ngeen indi lu baax lii di ko wane moom indi lu baax lii joxe ko joxe ko fi ngeen ko war a joxe également moom mooy euh, xelu nañu xelu na bu yàgg moom. su dee ñun tey la suñu xel génn moom xelu na bu yàgg képp koo xam ne def nga lu baax rek xelu nga et puis gërëm la sant la di ñaan suñu borom defal la taw féex tey siir ak najaax suñu borom sàmm la également ba ñu réew mi yëpp mën a sàmm. beneen étape di hôpital Ndamaatu fii tamit naka noonu jébbal na leen ay produits jiitu hôpital bi ñoom it yëkkati kàddu sant boole kook sensibilisation. raxas di raxas seen loxo bu ñu génnee dem am contact bu leen nañu raxas seen loxo systématiquement. kuy utiliser solution hydroalcoolique aussi c'est bon pour la friction des mains mais boo ko defee trois fois nanga nga raxasuwaat door ko def donc loolu daal la ñuy mën a wax te ku mën a ku mën a toog le maximum ci biir këram na toog ci biir këram lu mënul ñàkk daal na ko dem doxi ci population bi dellu ci parce que mooy il y de contact mieux ce sera contre la la transmission du virus ñi ngi ko nag tëje si daara alquranul karim fii amal nañ fii ay séance de démonstration si wàllu raxasu bi ak njariñ li jàngal ko gone yi ñoom it ñu mën it doon ay relais fexe tamit ba seen moroom yi mën leen topp si set gi liggéey bu am solo nag def na ko diggante ñaari fan li ko tàmbalee ci commission bi nu dénk wàll xeex coronavirus te nag sous préfet bi jiite ko ci arrondissement bu Ndam waaye tamit dem na ci grande mosquée bu Touba jóge fa dem ci structure sanitaire yi ak daara yi fas yéene ko tamit wéyal tànk mu ni jàngoro ji demul ba jeex tàkk du ma sa teggi loxoom